supporté fa bopp ku mun wutut ñi koy def nga fekkee ñu fañ koy defee te ànd ko ak ñoom ñu a doon waaye bisu gàmm nga mel ne ko guddi nga ko jëkkoon ak ga ca topp ko ci jullit ñu sant yàlla bu baax a baax na ci ko sant di ci dolli ko ñaan ci li mu digal di ko laaj ko laaj ci xéwalam yi ak yërmaane yi ak ngëneelam li asalaamaaleykum wa rahmatulah wa